abonné suñu chaîne YouTube ngir jot saa su réew mi la woon boo ko woowee sax jotoo ko da ngay gis mu rappelé la wax li ko teree jël téléphone am loolu lépp respect la euh, ku bàyyi woon xel bis bii ko dal tey te nekk sunu kanam ñun ñëpp bàyyi woon na ko xel kon nu ngi koy ñaanal di marsawu jullit yi fi teew yëpp di marsawu këru diine yëpp ndax amoon na relation bu rafet ak këru diine yëpp. donte ku nekk xam na taalibe la woon waaye këru diine yëpp la duggante loo nekkoon ku yaru nekkoon ku disponible ñu ngi mat saw sunu rakk Bougane Gueye Dany mi nga xam ne mooy boroom këram ah, fonkoon ko lool ma xam tey li muy ressentir ci tristesse relation di ko ressentir ci ay douleur te loolu la plupart des Sénégal moom la ñuy ressentir kon yàlla na yàlla xaare ko aljana defal ko njéggal defal ko yërmande am nañ ci nag rafet njott ndax boroom këram gërëm na ko te yenent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax moom mi gën a mat ay wax ci nit ñi gën ci ñëpp nekkoon ki gane àdduna ci weer wii te weer wi jeexagul yenentu bi sallallahu alayhi wa daa waxoon ni iza sallatil mar'atu xamsaha wa saamat shahraha wa xafizat farjaha wa ataat zawjaha mu ni fu boobaa daxalatil janna mu ni jigéen su fekkee mu ngi julli waxtu juróom di woor weeru koor ni mu ware sàmm boppam ba du mooy yàlla jëkkëram képp ci la yem mhm. nekk tam koo xam ne topp na jëkkëram ci ay ndigalam yonent bi ni kooku faw mu tabbi aljanna kon rafet na nu ci moom ndax boroom këram gërëm na ko tey ba tuur ay xéewal jooy te loolu yombul kon nag wane ni euh, soxna mi yàlla na yàlla wanale ko ak yonent bi alayhi salaatu ndax weer wi mu génn àdduna di sëhru rabiul awal mooy weeru gàmm te matagul jeexagul weer wi waaw ah, xam ngeen ni ci ñaar fukki fan yi ci la ñuy war a toll te boo ko seetee tam alxamis ji mu wàcc liggéey dafa dem ba dugg ci saan bi ñu ko jullee ba noppi lañ ko jébbal boromam te loolu borom xam-xam yëpp maase nañu ni ci yawmul jumaa lay dugg wala laylatul jumaa ci guddik aljuma kon première guddeem guddi aljuma la nañ ci rafet njort bi ci des tam wéy juróom bu jigéen gërëm na ko yóbbante na ay kàddu wax nii xale bu ko noppal la woon ku am yar la woon ku am teggin ku ko doon jàppale kon nag ku sa yaay gërëm sa baay eh, gërëm la ah sa borom kër gërëm la ñi nga daan séqal ñëpp ci wàllu liggéey itam gërëm la nga boole woon ci disponibilité yaru discrète courtoise disciplinée intelligente teey loolu yëpp boole woon na ko yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmel yàlla na yàlla yaatal bàmmel mu defal ko ci yërmande man rarement laa ñëw ci jataay yu mel nii waaye li tax ma ñëw ci personnellement man ak moom la waaw ah, parce que yar bi ma wanoon respect bi ma wanoon mësuma sàllalu sama ndijaay rek la daan wax fonk ma lool di ma woo di ma nemmeeku su weeru koor jotee mu laaj ma lu ma xat-xat damay wax dimbali nu nga boole ñu ci kon ñu ngi koy ñaanal ñaan la jullit am waaw yii nag ñu koy bàyyi xel parce que avertissement la ñu koy bàyyi xel parce que signe yu foor la parce que ki dem ndaw la 42 ans xale la xale bu ndaw la 81 ans xale bu nda tuuti la kon nag ñuy bàyyi xel yi xam ni mu ngi ci sunu kanam yàlla dina jël mag dina jël ndaw dina jël góor dina jël jigéen dina jël ku baax dina jël ku bon dina jël borom titre jël baadoo la kon dee rek a fi nekk dee mooy dëgg moo tax am na bindkatu nasaraan bu mag bu ñu daan wax la comtesse de Noailles jigéen la woon ngi dëkkoon France daf daan wax ni on a possède que ce que l'on attend je suis morte déjà parce que je dois mourir nit ki li muy xaar rek loolu la am te ñun ñëpp dafa mel dañoo gane àdduna pour xaal si dee loolu rek moo tax ñu ñëw fi moo tax Théophile Théophile Gautier nekkoon kii jiite woon Parnasse mm-hmm. tontu woon ko wax nii naître c'est commencer à mourir nit bi mu juddoo rek ci wàccaayu deyam la nekk mag ñi ñu wékku ñëpp ci ñoom it bàyyiloo nañu xel lii mag ñëpp boo demee ci cheikhul xadim wax al mawtu aqrabu wa ëddha wa amar wa baxtatan yaati wa ma an u mafar nee na dee moo gën a jommalaate ci mbir yi gën a jige doomu aadama bi te xamu ko nee na gën cee jommalaate waaye gën cee mën a bett doomu aadama parce que surprise la ndax mu doon prévoir euh, anniversaire bu borom këram kon surprendre na ko donte taw bett nañu bari waaye surprise la kon dee day ñëw ci mbetteel dafa weex tam deelu metti la ndax nekk ki nit jékki-jékki ku la gisati dalaa fekk si war a fanaani ci bërëb boo xam day noor sa kaw nawet sa kaw di taw ci sa kaw loo fa jëful doo ko fa fekk fekk wóor Serigne Touba firi woon na ko firi woon na ko mas naa wax ni waxi làmbikat yi ñuy làmb seen wax jooj ñuy wax ndax xam ngeen lu muy wund mag ñu ne ko Mbàkke dimbali nu ci mu ni boo déggee ñu naan làkk dem na kóoni hmm. bàgg war na mbaam wuré wa def fëkk nga waxi mag dem na ndañ taali lu waaye doon jaay léegi ma lamb sëñ Tuubaa nee na ndax xam jën lu muy firi ñu ne ko bëgg nañ koo xam mu ne làkk dem na kóoni mooy ku tëdd ci lalu deewam garab goo jàpp ne da koy faj day gën a gaawal deem day dee rek loolu mooy làkk dem na kóoni tey këru diine yëpp teew na fi sunu kilifa gu mag gi Cheikh Madani Tall gis ngeen ko mu taxawu ko gis ngeen sëñ Basiru Xaadim Awba gis ngeen sëñ Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke mu sëñ Abdoul Ahad ubaydu rabbihi waaw Cheikh eh, ibnu Cheikh yi wa ubaydu rabbihi doomam jàng fi teew taxawu ko jullee ah, yooyu yëpp daje ah ak njabootu sëñ Cheikh Gaynde Fatma sëñ Ismaïla teew te xam ngeen ni Bougane mii boroom këram taalibi sëñ Mbacke Mouhamad la sëñ Mbacke soxna loo man mii la soxna si daan woo ma koy defal ay waxtaan ci sëñ Mbacke soxna loo kon soxna moom mi ku baax la ba dem